ak Abdoulaye Bob. li ci yéenekaay yi Walf Quotidien lañ koy doore xëyee na tey assemblée nationale ne ku yaboo séntu fa ci lu yàggatul euh, kii premier ministre Ousmane Sonko ni ko premier ministre yi di baaxoo di defee déclaration de politique générale dina ko fa amal yéenekaay bi ne bu deful ndànk nag mun na fa daj lu méttee métti ndax motion de censure euh, mun nañ ko caa amal euh, ndax lim bu takku ci ay député majorité yi fegook Benno Bokk Yaakaar te moo ne de coalition Yewwi Askan Wi ay demeewu ni ba tax na euh, ñi nga xamante ne waa Benno mun nañoo gàllankoor wala xajamal liggéeyu usman Sonko ca googule assemblée nationale yéen a kaabidi Walf Quotidien moo ñu ko yëggee yéen a kaabidi Sud Quotidien des ak ñu nag euh, premier ministre Ousmane Sonko euh, fas yéene amal jéegoom bu njëkk ci conseil des ministres gi xamante ne daañu ko amal tey gannaaw bu ñu taxawalee gouvernement bi jokkalante léngéey dox ci diggante ministre yi bi la yoon nag ci lay jël dogal yéen a kaabine dina ci am ay directeur de société ay PC ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne mënatuñoo nelew ba yandoor ndax saay su ne mun nañ leen fa folli euh, teg fa ñeneen yéen a kaabi di sursa mu ngi ñuy tegtal euh, xëy ci waxtu wàcc ci waxtu loole nag nguuruk euh, Bassirou Diomaye fay bëgg nañ koo jëmmal loolee nag yéen a cabinet jëru ngi ñu dénk wàllu xëy mi moo ko dooree ndax teel na xëy ci waxtoom pointé ka ca des yi tamit xëy ci waxtoom ba tax na sas nañu liggéeykat yi ñu xëy ci waxtoom yéen a cabinet waxtu googee sax ci Albert Royer jot nañ ko fa matal si Kamba ñeneen ak ñeneen Ousmane Sonko nag jot na déglu ñaari DG ca fi nga xamante ne eh, ca building administratif yéen kaabi di source moo ñu ko yëggee yéen kaabi di Le Soleil mu ñu dégtal njiitu réew mi eh, président Bassirou Diomaye fay mi ñu séentu nganam tey foofee ca Nouakchott eh, ca Mauritanie yéen kaabi ne ñoŋal diggante ñaari réew yi bokk na ci li ko tax a jóg daañu waxtaane fa mbirum pétrole ak gaz yéen kaabi di la mandaane bokk na ci njaay gañu bëggoon a def fa jëmale ko ci kàggu bibliothèque wu Léopold Sédar Senghor ma ne ca Paris yéen cabinet loole mu jotul sotti euh, président Bassirou Diomaye fay delloo na Senghor la mu moom euh, fexe na ba bibliothèque googe ñu bañ koo jaayati euh, lépp la ñu tegaat ca suuf yéen cabinet le mandat mu ñu ko yeggee ci xëtam bu njëkk yéen la le quotidien mu ngi ñuy dégtal Bassirou Diomaye Faye président jot naa nemmeeku këru diine yi ma nga woon ca Tiwaawan nag tubaa mbakke nam ko defee nag ñu bari jot ko rafetlu ndax àndutoon ak mbumbaay tey tamit def na diisoo aw gu yaatu ak kilifa diine laata muy dellu soit Ndakaaru yéen kaay bi di le quotidien moo ñu ko yëggee yenn kaay bi di réew mi quotidien doonatul njiitu réew moom euh, Macky Sall waaye nag am na ndombal tànk gu bees mooy envoyé spécial bu quatre p ma nga woon ci ndaje mu yaatu ca Nations uni jot naa jokkook euh, Antonio Guterres njiit ma waxtaan gu yaatu dox seen diggante yéen kaay bi ne mooy post bu bees gamu occupé moom njiitu réew mi euh, Macky Sall njiitu réew ba woon yéen kaay bi di turbine mu ngi ñuy dégtal diggante Macky Sall ak Amadou Ba ana kan moo war moromam yéenekaay bi moom la bëgg a xam toog muy dox mañu ne dañ koy jëlee ci nguurug Bassirou Diomaye Faye yéenekaay bi ne dina jafe lool ndax daanaka euh, ñiy parier ci jamono ji lim nga takku na ba tax na kirnaar bi ba tey la woon fa woon yéenekaay bi ne jëlee fii toog muy dox mun naa jafe yéenekaay bi di l'info mu ngi dekkal libéraux yeeg Euh, ñi nga xamante ne mooy kujje politique bi euh, na muy demee ci jamono ji ndax kari Wade day teg tànkam wala boog ki nga xamante mooy amadu Ba day faf euh, jéngu teg tànkam ci opposition bi doon chef de l'opposition yenn kabi di l'évidence du ñu dégtale scandale yoo xamante ne am na ca pale ba ci nguruk Macky Sall ay milliardaires yoo xamante ne jot nañoo fudd seen koom-koom yéen cabinet ñooñee naka la ñu jëflanteeg nguur gu bees bi yéen cabinet yor yor gi xëy wutali bu Ndakaaru naka sudul noonu gam fa doxale moom Racine si mi jiite port bac eh, ñam ca doon jox mbaxus ak ñam ca doon jox ay marché gré à gré marché yaa ma neex mu ngi ci yor yor bi yéen kabidi 24 heures mu ngi ñuy dégtal ca Tanaff ca Kolda lu tolloog juróomi milliards ci la ñu xayma ci ay faux xaalis gu wérut moom lañ fa teg loxo yéen kabidi las ne ñi amee jalis ci jamono ji feebaru roño ña ngay am jafe-jafe ci jamono ji ndax fa ñu eh, nekkin ga demeetul noonu ña ngay woote wàllu yenn kaabi di stade mu ngi ñuy dégtal euh, Ligue des champions euh, bokk na ci euh, City ak Real yenn kaabi ne ñoom ñaar kan mooy fekki Paris Saint-Germain ca demi final mu ngi ci yenn kaabi di stade daan ci dikkat incha allah